nit moom dafa war a niite li koy wutale ak ñooñu rek mooy niite gi yor melokaanu nit moo xam muy góor wala muy jigéen bu dee góor mu góor góorlu ak góor niroo ak buy dox sax bu mu karaas karaas yi dal yi di xoosu waaye dafa war di tegg di teg tegg yu sore pënd bi na kur ñoo xam ne góor moo jaar fii suy lekk mu bañ di ñalaam ñalaa bi di tibb tibb yu dëgër te jege nga xam ne fu sukkoon bu ñëwee ni fii góor a fi sukkoon loolu moo koy may su defante jotee bis bu ko lislaam soxlaa mu mën a taxaw waaye góor dana góor doon góor sax mel melokaan yi ma wax waaye bu taxoo ko jigéen rek léegi tamit mu ñàkk ak ngóoraam day tàmbalee wax li jigéen ñi waxe di lekk li ñuy lekk di doxee ni ñuy doxee su booba bis bu ñu ko soxlaa day mel ni góor te du góor mel ni baa baa moom da nga gis mu bari duñ lool sëwut fii sax nga am yaakaar si ne bis bu naaw jotee day naaw waaye bis bu naaw jotee dem fenn daa yor duñ ko kese waaye it da jàpp ne loo war a sëf la ndax daa gudd ay yeel mel ni gëléem waaye bis boo yaakaaree mu sëfal la dara da nga xam ne sëf taxu koo jóg lu njariñam xanaa moo yàlla ñoo ko xam foofu nag nit waru fa dugg waxuma laa góor bokk yi góor ne góor ca góor ña gone yi fa sax junj naa ko lekk gone yu jigéen yu yu bari bu fa góor rax dinaa ko góor sa góor yu jigéen ci jigéen ña wax lañ ca lañ cay tag bañ doonee gone kon nag loolu sëriñ bi wax lu ñëw ci jamonoom la waaye daal li gën a mat a fàttali ko moom waxam jëpp a mat a jàpp waaye bokk na ca lu waay neex na def sukkuraat nañ ci kanam